waxee jaam ñi fekku fa saa sang bi Serigne Touba waaw xadim rasul yaakaari jaam ñi tey sax fa ndax Serigne Touba dañ ni sëlli wa sëlli man ala man xat ajaa baabil balaa mm-hmm. yow ma alastu awala xam ne sawee takk fekk ko fa kon sëñ Mor Awa Ndiaye Mbare Ali Ndiaye mm-hmm. sëñ mm-hmm. ni ko fu la fekk moom sëñ Tuubaa jërëjëf laaj waaw xam nga dama cee bëgg a dugal lu ma la wax ne la bàyyi diw ne ne tubaarkal bismillah miin nañ ko ci yow de waaw fa ndax daa dégg naa ci bëgg démb rek ñu ni ko waxte ni wa alxuraan ne addis ne ne ni bàyyi diw Cheikh Rafal ne te ba muy ba ba fi Cheikh Rafal di jóge ki koy wax judduwut kon war na koo teg ci dalil moo tax lu ma wax ni bàyyi diw nee na ma ni leen te ñi koy wax nag maguñu ma rawuñu ma te gënuñu ma gudd tànk te sëñ Saliou Mbacke dane ponkal mu yàgg a dox te lu mu gis xam ko te lu mu gis du ko fàtte te lu mu xamul laaj ko mën naa xam lu ne. waaw. cë moo tax suñu la si Mor Awa ni ko fu mu la fekk suñu Mor Baas màkk Baas ni ko fu mu la fekk. mooy maam yi ñu sant Baas. waaw suñ Mor Awa Ndiaye Mbari Ali Ndiaye la dëkk ci Lambaay. waaw waaw. suñu tubaab nee mbootu amul lu ko gën. waaw déedéet ci àdduna. nee na mbootu lu ko gën. Mm-hmm. fu mu la fekk sëñ Tuubaa fekkuma ci pénc ma ba ñuy woote it katax rasulaa jëkk wuyu ca laa bokk su ma ko jiitewul mu ne ko fu mu la fekk mu ne ko fekk na may wattu géej yi yàlla yi ci baatub laa ilaha illallah ñu ne ko ci nan mu ne ax faal yaa sëren mosoon laaw bi siri laa ilaha illallah ak faaliyaa sër musoona laawu hubban nihma laawu rabbi wala ilaha illallah lam yoon on ma baaxa ana laawu fadlan wala ilaha illallah hasbiya laawu laa ilaha illallah ali tawakkaltu woo rabbu arsi asimi suñ taani ko wax Cheikh Rafal suñ taan na ko ko wax yent yor par bis faatolo tee dem àjjana wax laa ilaha illallah seydina muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi allah akbar sëñ Tuubaa ne ku ko wax ñaari ñeent yoon kenn mënut tee nga dugg ajana rafaxani ilal jinaani laaw bi ka walaa ilaha ilallah sëñ Tuubaa kenn mënut tee ku yàlla bind lu bootu ci man man ak dara laa ilaha illa dugal leen ajante yàlla du leen wuyu du leen seet baa ngi si kaw defal ah, benn bis hmm? waaw sëñ tubaa benn bis suñ tubaa hmm. génn hmm. toog baaxoñ tong ci garab yi ba mënoo gis xobi garab bi baaxoñ mel baaxoñ mel xam nga baaxoñ avocat la ah. waaw avocat ah. ñuul na ko ku di am lu weex fii waaw moom la Cheikh Rafal di sole ëllëg jotee jaam ñu Cheikh Rafal leen di atte mbaa musibaam baaxa ñu ni tong ci kaw garab gi. waaw ba ba kenn gisul xob yi. Mm-hmm. suñ toog tëll génn. Mm-hmm. ñaa baax na yow ma ba yow ma jasaa. Mm-hmm. Cheikh Fall jariñ ñu nërëm sukk raam ñaari bëti woo dëpp dënd bi ci suuf muy xiir xiir yi ni gaas bu tàkk. <laughs> te Cheikh Fall bu ma saa dëpp dënd bi noonu lay taree alxuraan ba kenn woon ginnaaw sëñ Tuubaa te bu si bu dee siggat jóg mag mu nu jëkk ni jàkk jàkkaarloo yow nga jaaxaan ndax doo attan doo su bëri mu ngi mel ni ponkam ndox ci mandi baa mu yem ci gaynde tiitaa nga jëmuy tiit kenn mënta tee bët yaras mbaa xaram bi sa dafa rawan gaynde gu mm. waaye moo gën a laabiir wutin wu ñu sukkër loolu <laughs> mu ne ndax mënees na leen a te jële ci ngërëmul yàlla te yéege ci ci yàlla moom moom baaxo yi si ngeer ba dënn bi jëm kaw ndi jëli tuut mu sukk ñaari butum yi ni yàlla ñu ni pët pët pët pët pët pët waaw jóg jolli daan kër gi lu toll ci téeméeri mètre <laughs> ñëpp jubloo si jëmuñ si si si ci biir kër gi daal di naax naax naax naax suñ taalee saa baaraam yi leen jotagut hmm? jotagut hmm? waaw tey loolu si la suñ di wàcc waaw njaareem ci njaareem njaareem lu ne xew na fa lu ne fa xew <laughs> Cheikh Fall daal di ànd ak àll ñibbi si kër Cheikh hmm. nga xëy nii gaa yi tuddee daw ko tudd moom Hmm. waaw laaki laakaa laaxi laaxaa laa ilaha illa amul xaaf amul keef hmm. laa ilaha illa laa hmm. topp kees gi ndax suñ tuwi daan jëkk baa ngi ñu barbar booba barbar amul waaye dañuy wut ay bant samp ko di ko takke mu mel ni barbar bii mu jaar ci biir mbedd soosu nit ñi toog ci biti di ko seetaan waaye kenn du jox loxo mbooloo mu mu dem lu toll ci téeméeri mètre wala ñaar fukki mètre mu ni cóob jóg taxaw julli ñaar rakk tàllal ñaari loxoom ñaari leen jàll moom sëñ Tuubaa xalaas mu toll ci bunt baabu salaam foofu sëñ Saalu mhm. boobu baabu salaam waaw baabu salaam mhm. bi ni allahu laa ilaha illallah ah nag serafaa mhm. topp ca loolu biñ ko daree dar ko moom Cheikh bàgg am ku daaj mm-hmm. laa ilaa ilaa laa maam Sharafaa la baax fu la góor di dabee delloo ca baaraam muy laa ilaa ilaa laa maam Sharafaa la baax fu la góor di dabee te yàlla muy xëy doom kooku lu mu wax muy laa maam Cheikh na doom. mu mm-hmm. faat na xëy su ma waaxoo ba dem wala ci lay xëy ba jant sot du ko jeel. Mm-hmm. wenn jéego bi. Mm-hmm. tey xëyum Cheikh Ibra. waaw. Oh. xalaas. Saraangoog. Saraangoog bokkut ak daajub carrière. bokkut daajub otoraay. bokkut daajub aras. bokkut daajub nga daagum gëléem. bokkut ak Sam Fall. Sam Fall Karim Abdou Karim moo ko jëkk daaj. ci kanam suñu Moussa Fall. booba tànk bi day metti di naaj. waaw Serap Fall suñu Moussa Fall ni ko dee wundiilu ndax tànk bi tànkam gi deñ hmm. moo tax ku Sam Fall soox. Sidi Karim ah, Diop Sidi Karim wër mi <laughs> ñu koy wër ñu koy wër. ñu koy ah. bu toolee fa mu toolal suñu Moussa Fall tàllal loxo yi. bu taxawee mu ne ko fii nga ko tàmbalee ba fi nga dellusiwaat ku ci bokk daj nañ si jëngu saara. Hmm. far nañ seen i bàkkaar ba ku ko daaj ku la ca roy ah. fa mu tàmbaleen fa bu yëg si waatee ñu dajji butti sawaraam jé jéngi sawaraam jëg du jégi salaat mooy soox bi Karim Diop moo tax gars yi di sox di wër di bëngee ah, sama xel dem na kenn mun koo ñàkk waa parcelle yooyu <laughs> ndeysaan Sibdu Karim Diop moo daajan Sam Fall eh, suñ Moussa Fall moo ëpp bëtin ci monde bi hmm. te téeréem yu bari yooyu mu takk ba baat bi fees bu leen defani ne aaya alxuraan la mhm. déedéet waaw lettre jërëjëfi sëñ Tuubaa jërëjëfi Cheikh Alfa rek la daan takk tey te moo ëpp baatin ci àddina mhm. waaw waaw moo bu mu saani mhm. ñëpp bu ñu ma gàddal bañ ñëw Moussa Fall ñëw man ub làmb ji bi mu wàccee liggéey ci suñ fal suñ fal damaa ban àddina jeew ma waaye kon mën ko pëkk pëkk mu jóg delluwaat saab liggéey waaye kon àddina damay jeew Baye Mbaye ndaw ni ko yàgg nañ laa jeew yow bañ la jeewee du fii tey mu ne ma mu mu ne ndaw nel tekk ni mu mag du denc nen gone di sànni doj moo daan daaj Sam Fall di soox moo tax ku daaj Sam Fall soox carrière mag ñee ko daan daaj jamono yi sëñ Ablaay Fall Ndar sëñ lu yor baxa mhm. yor ay bot ab kaan mhm. kaalaw di ferong laay ci dënd kimiñ ji mhm. si kar si jolli carrière bagge kàmb gi mab hmm? daanu ci seen kaw li mu sax ëpp na ñuy sëlli par benn sëñ Fall ni cee kaw rek faxa sunet bi ci rek cee kaw ñu di ko def di ko def ba am ku ci yendu ba tëkku seen gisuñu ko suñ fa ne ngoos leen des na de roogaa ngi wax ngoos mm-hmm. leen waaw ñuy ngoos ndànk mm-hmm. ba peel bi dab góor gi bi peel bi dabee ko góor gi bu ñu gisee peel bi takk ko kawar lañ ni ngi noonu ñu xoos ko ba dab ngaa mi mu ne bu leen ma gaañ def leen ndànk ñu yëx yëxal ko buddi ko génn teg fi barab suñ fa ne ko daagu daagul mu daagu ñu tuddi ko Mikael Njaay Mikael Njaay <laughs> Mikael Njaay Mikael Njaay carrière bu masaa ñàkk ndox ba kenn amul foor naana ji bu dee ma dikk bagaan dagitu bërigo yi laa la wax bërigo cent cent mille mille mille litres bi mm-hmm. lañ dagg ci digg bi moom lay gàdd bu génnee ci àll bi fu mu xamu fu mu koy jële waaye bu ñëw ñu seet ko mu jàpp muy palax bu ah. yenn ko ñëpp naan ah. Mikaël la Mikaël ñu ñu ne ko tuddal bàyyi Abdou Ibrahima ko tuddal naa la Mikaël Ndiaye ay sa tama ngi may dégg ah, Mikaël waaw mhm. Mikaël Ndiaye ca carrière waa ca carrière <laughs> ba mu bàyyi Ibrahima Ndiaye Faris mm-hmm. Serif Asal ko tudde mm-hmm. da ko fekk ci troisième étage muy muy raax mm-hmm. muy Ibrahima Ndiaye Faris mun kaa faal bu ci nekkee yëguma ko mun ko bu ci néewut ma def ko ci Serif Asal a wax ci mu ci ca deuxième étage ne daayi fi suuf ci wetam mu ne ah Ibrahima Ndiaye mu ne faal mu ne da ngay seet dëgg la am du dëgg mun ko ñi ko faal damaa peegraay peegraay mooy kontaan. ko ah. mu ni sa tur yàlla wi sa tur bi ñoo àndiraax. Oh. a jëkk. <laughs> yàlla wi. ak sa turel bi. ñoo àndi raax ñoo àndi di raax. <laughs> daam doom loo raax ku ko ronu. saa borom jéggal la say bàkkaar. bay bi jaay faris. ay bokkam a ngeen door ak njànku ñoom seen moom. Ablaye Faye borom 313 toofu foofu la dëkkoon. ah 313 ah, tudd yàlla. doom jafa ne Mourou Faye mooy jël tudd yàlla woowu ak tudd yàlla ak Thierno Diop moom la gàddu. sëñ Ba baax na de. waaw mm-hmm. fi na mag ñi ne ci. Mm-hmm. Baye Baye Ndiaye dëkkoon ji Touba Fall. tudd mm-hmm. tuddkat yàlla yi suñu Moussa Fall la woon. waaw mu jëg yëlli. ca la bokkan mu ne su leen a lim bare na. Mm-hmm. bu dee ci suñu bawol gi Maxeet doon premier. Baye Maxeet Baye Maxeet Badiane. waaw ndax suñ bay loo dana ci Israfil lañ lañ ko bind. waaw. Hmm? Ah. Ah, ah waaw. man daal ci Israil lañ bind woy na ko fanweeri woy ak nangam mu muqiitu bajaan la woy woyee ba mu toll. Maxeet day dem. sëñ bay loolu du ko yónni mu dem ca marché ba di yalwaani hmm. wala boog mu yónni ko guro mu di ko jëndi. Hmm. mu fekk fa benn dox muy daaj bii maxet di daaj mu daaj ko mu toog fi moom ba lañ ko joxoon ci wetu mu daanu jox ko addiya doom bi ni nit ci loxo la ne ko jógewuma adduna hmm. alaxira laa jóge ca àjjana daaj bi la ñuy daaj xaaral ma defaatal la ko moo tax ko ma xet daga daajee mag ñi daanu may daaj ko waay bay bay dina baax nan dem rek son lu dara ci kanam dina ñëw ah, ah, dina ñëw aywa waaw boobu ah, ma xet def noonu hmm. lit <laughs> suwan sëñ bay loo jikki ni ko kooñ nañ la mu jur sëriñ loo ca bu Thierno Diop Fawceyni dëkkoon Kàll. Mm-hmm. Ibrahima Lo sëñ mu sëñ Baye sëñ Mati Badiane moo ko tuddi woon dàqal foot fanaan dàqal dàq saytaane ñu tuddi ko dàqal loo. waaye man ñu waay déggal rek seen dàkkantal yi. jaay doo saf sàpp ak yàlla. waaw ñu indi jaab joxaane day gàddu xiin gi di dëbbe si kar si moom njëga ngay bayti dañuy gàddu xiin gi ganaskat yi ganas mu debe sikar si di tëgg xiin gi. neex na de. Ah. xëy sikar si mujj sikar si ñoom laay faxal dara. Mm-hmm. waa Pékoog e ñëw. Mm-hmm. moo bind seen day tëgg bàyyi suñu laay faxal ñëw jël galeen bi. Ah. tulli juróom-ñaari galeen ni ku dégg ku dégg ndënd mi far naa sa sa bàkkaar yi àddina ak àllaaxira maanaam laay faxal dara maa wax loolu. ñu mm-hmm. xiin wa waaw. daal di taw moo bind seen sàjj géej mbambulaan ku la xees ku la xuus tooy. déggal loolu. waaye dama dimbali ñu si waay. moom Mbambulaan. <laughs> ku la xuus tooy. ku mu xuus tooy. waaw mbaa mu ni ko loolu yàlla may. gërëm ci sa ndey ja bañ du ko dindi. loolu yàlla may. dégg loolu oh. sëñ Ibrahima Fall ndar ni waaw. la ma fat Fall Fall liggéey Fall Fall waa di liggéeyal. Mm-hmm. su ma tegal li ma Cheikh Fall defal nee la ma def mën naa ci def àddina ak àllaaxira te ëllëg jotee ku gis sëñ Tuubaa maa la Cheikh Fall maa la koy wan. Mm-hmm. <laughs> joxal sëñ mu dem ci ni ko yow kenn mënut a téema tegale ci seetu Cheikh Rafal bi. dëgg la góor yàlla dox sa digganteeg seetu Cheikh Rafal. sëñ Ablaye. Baye Malick boobu di jàng jës bu. Mhm. ba si ci yow ma biis tàdda ni laal. Mhm. yow ma biis tàdda xitaal. yow ma taaru firi jaal. Mhm. yow ma rilaal loolu jëm sëñ Ablaye. ni ko Malick Mbuub mu ni ko Faal mu ni ko yow ma rijaal jooje rijaal ya fa ne ku ma ci féete kaw néew fa. <laughs> sëñ Ndiaga Diouf boof. moom tuubaatul. sëñ Mbaye Diouf Ndiaye boof. sëñ Saame Ndour boof. sëñ Aliou Diouf boox boof. moo mooy sëriñu Abdou Mbacke Diouf divorcé. dugg Sikula. dugg nga bool nag waaw bool moom. waaw moo ko moom. Jëng Tóorik. sëñ moo Jëng eh, Xombal. waaw sëñ Silla. bàyyi sëriñ Sylla Baye Fall ci Masalik. waaw ci la ci la rewunta waaw. damay ziar bu baax a baax waaye sëriñ Sylla waaw. Baye Baye Baye Mbaye moo dëkk Njee. Mm. ak ku ñuy wax Mor Jëng Polik. ñoo dëkk foofu. yaa ngi bool de. mag ji la benn bi sëñ Ibrahima ni Aliou Diouf boo mu ne Fall mu ne ko yomal xiyaam de Aliou si na Aliou bu génnee mm-hmm. bàyyi dañ ko def. jëm si bis pénc nga bàyyi koo boox jëm si bis pénc su ngeen dajee du la mënal dara te du la ëpp mbooloo mu defar. loolu sañ-sañ yooyu. moom wax ni ma bi may liggéey Cheikh Rafal fas muy jël première ci course du daw wenn xel ñaari xel lay daw ci wenn xel. alors ah, <laughs> ne ko ñaari xel ci wenn xel ma jaaxal. mu ne danaa téppét bu tabal tabla ji daanoo. Hmm. drapeau de club danaa téppét. bu dawee la ñaari téeméeri mètre bay dugg juróom fukkeel ba mm-hmm. bu gars yi bëggee foon faalal ji mu ni téppataat bi mu nee téppataat ci wom bi la daan si caay ma may ko ndox mu toog mu ni ma damaa defoon maa ngi ci course bii daw <laughs> su jëli jub wax jaar ak moom baram ndiireen nag ah. Baye Blay Ndiir hmm. maam Saliou Fall ko defal sëñ Ibrahima Fay Norang sëñ Lamine si laa ko defar ñoom ñaar le si lañu ah, dañ leen daal tudde Ousseynou ak Assane bàyyi <laughs> bàyyi ngir ñëw yor pañu kilo guro mm-hmm. jikki sëñ maam Saliou Fall ni ko damaa bëgg na yaxantu ji te yàlla damaa xiir ci gura mm-hmm. maam Saliou Fall tànn ca ñeenti doom mm-hmm. sànni ko ci xeble yi xeble gu ne doomu gura ba yàgg mu tànnaat yeneen ñetti doom muy juróom-ñaar mu sànni benn ci jaww ji kenn gisu ko maam Saliou mm-hmm. mu fët benn bi ci suuf kenn gisu ko mm-hmm. mu téye benn jikkuwaat bu xool ci kaw xool suuf ni tuf ci guro gi ni ko am dugal ko ci pañe yi ngay jaay ngoro goo ko takkee du tas mm-hmm. cey googu guro ku ko jéggalu ñu jéggal la néew bu ñu ko ci sa sëb dëj nga dem àjjana koo ci may bu ko yëy jàngoro ju tëb docteur ak bugaama jibar mu wér ah adi bàyyi laaj bi man ma ne ma ne guro ba tey ba tey <laughs> ah, ba tey boo demee ndiireen ñu jox la guro goo guro fa loolu ko jar naa de ndiireen ci ginnaaw Touba ak kaa mat xaar leen de xaar leen ñu wóor moo jur Saliou Ndour incha allah ah, ak Modou Ndir ñoom euh, ak gaajooñ eh, kooku de du guro kese waaw ku jaboot la ah, déedéet dara maam Saliou ni ko Ablaye Ndir mu ni faal mun ko def góor wàllu yu ni ni geesu yombe golo xam nga gone yi boo nee boy duñ ko xam. Mm-hmm. ni geesu yombe gola def buur wàll yi noonu la ma yombe. <laughs> loolu la waxan may bàyyi tombe nag. Baye Mor Ndiaye. waaw mm. ni ko doo fi bàyyi doom doo am kër. Mm-hmm. mbaa ci sa am kër. Mm-hmm. tey baax bàyyi Mali Ndiaye. mais fa ne di xalifaam. boo faatoo lu séq doo ko bàyyi waaye fàqat naa ci nguurug yàlla gi koo xam ne bu faatoo nga doon ko ca loolu sa lépp di sottee moo tax Malick Ndiaye doon na yàlla dafa yàgg lool te ànd ak wér Baye Malick Ndiaye ñu ngi koy jaamu bu baax a baax wax dëgg yàlla Baye Malick Ndiaye mu Baye Mor Ndiaye tomb daal waaw Baye Isma Joxaane ñoom nag Isma Joxaane Mor Ndiaye jum mm-hmm. ak Baye Yaram Mbay mm-hmm. ak ma xujjam mesare maam yi gànna mesere suñ gànna ñu ngi koy siyaar bu baax a baax baax ma ko jëm mesere waaw est-ce que suñ gànna murit waaw ci Moustapha Ndiaye waxti mm-hmm. ak Massamba Ndiaye waxti mm-hmm. ay doomi bàyyi lañ mm-hmm. Ah, dégg la ak ña sant géej gébb ak ña sant Juuf mu jëliw sëñ muudu kase tawa ni ko def naa la yilimaan muy ëwal dëkk bi ndomba yi di ëwal Cheikh Rafal bu jot bi bu waxtu julli jotee mu dem jiite gaay yi yor mbaar yor mbaar Cheikh Ibra ñu ni ko faal lii nag mu ne duma doom duma duma xarub këll damay foddi foora neneen muy ëwal gaay yi moo leen jiite ji moo seen yilimaan Cheikh Ibra waaw daa xam li xew <laughs> benn bi sëñ Moussa Fall sàjj gajal ñi sàjj gajal da gi topp sëñ Moussa Fall mm-hmm. si jolli mm-hmm. mu bàyyi ko xuru mm-hmm. romb këram ja jëkkër ma jéey jëm si Baxdaas Daaru Rahmaan ak Daaru Rahim Daaru Rahim la suñu Daaru Rahim moom menn mag bokk ci mbooloo yi comme ni mu murit yu moderne yi léegi mhm. nga xëy boo ne sëñ Muntaxa ñu naan la bu njëkk amatut nga ne Cheikh Fall mu li ne neetu fi da ñàkk xam la waaw déedéet maanaam sëñ Tuubaa dane am na ñoo xëy daa leen sëlbu am na ñoo xëy daa leen yëlbu am na ñoo xëy dinaa leen yóbbu ñenn ñi dinaa leen boole fu ma jëm boole leen ak ràbb hmm, ñun danañu yóbbu rek waaw waaw waaye linkaar ak dingat ak sikki sàkkal ak néeg néegal ak néega dekka leem <laughs> yooyu de wóorut ak <laughs> di nekk ndékkil suba di séddaale añu soir su ma ko joxee nu may def ba ëllëg lu ma am mm. Cheikh Fall nekk ko def doo yegg ci yàlla eh, da ngay fàggu fàkku rek gëm te gëm fàggu fàkku gëm gëm mm. doonu sëñ bi lu tax mu wax nangam doonu lu tax mu dox nangam ñetti ñaari taal ñetti taali bi toogal ci seen sëriñ jongama jub rafet jóge fa càll ba ñëw dugg ci biir néeg bi mm. kenn ki tàng sa ci laan ndox tegal sëñ bi kenn ki tëng njawam ki gis fereng laay teen mm-hmm. ñu noppi ñu ne lu ngeen jub ci lii ki tànga ndox mi ni man damaa xam ne bu xelam doomu adama yi ñëwee mën naa def jëfi doomu aadama te man saa ngëm du wàññi ko du yokku mu di saadix a ngoog waaw xam naa li xew de déedéet sëñ bi du tànginu bés bu ne muy nit du tànginu bés bu nekk muy malaaka wala muy wàlli réseau la am réseau bi day dem ak a ñëw ah kay léeg-léeg mu ne fii léeg-léeg mu ne fii léeg-léeg du fi ne bu dee suñu ñëwee nit képp la waaw bu dee suñu demee nit kese la bu dee suñu ñëwee moyul hmm. day boole jiñ ak ñot di ndi jow rek tamit kaw ak suuf da koy boole di gis lépp ah nuñ koy xàmmee nag ah nuñ koy xàmmee suñu blaat da ngay gëm kenn maslaa gaa yi da ngay gëm kenn maslaa ñi ci des xalaas ah, mbokk yi ñoo ko déggandoo waaw suñu <laughs> blaat ma ko wax dafa ma ne Adama Sarr téeméeri junni yoon te ñaar fukk ñeent ñëpp ñëwaat nañu àdduna ku ne yaakaar suñ tuwaa ca seex yi ci seex yi bokkuñu bokkuñu ci seex yi te ko ci tooñ nit mbaa nga def ko lu ko neexut suñu taw ko jaay ma jaan ma day fekk te kenn du la mën a fekk ma ne ko ma yuuxu ne ko kon mbàkke dee naa ndax man fu ne laay jom jom yi noonu la laay wax mu déere demeewul noonu waaw da ngay kenn maslaa gars yi ku lekk màngo bu ñor te mënoo fan ne mango da ngay maslaa biy xaay <laughs> est-ce que yi suñu la mag ñooñu Cheikh mm-hmm. mu ne bis ni tey mm-hmm. yaar laa bëgg nu waxtaane ko ñaar mm-hmm. waaw waaye maam mesar ni ma ba mu ne yaar laa bëgg ñu waxtaane ko dañu amee mbooloo mi nga xay Cheikh Fall lañ topp ñu ni ko noo ngi mun teg leen ana mbooloo mi ma topp ñu ni ko ñagañee mm-hmm. ba cheikh yeeg rakk yi mat mm-hmm. si boppam waaw ku mu tànn ca kenn mm-hmm. ni yaaram mbay mu ni faal mu ni ñëwal li taxaw ci saawet es ma juxaane mu ni faal mu ni ñëwal taxaw nii moor ngaay jum mu ni faal mu ni ñëwal taxaw nii bàyyi mba xujal ne ne mu ni mbaa bokk leen ci ñi naa lépp bàmbay di ci la bàmba ji lépp ci la ah Fall Mbacke waxaguñu ko de mu ne bu leen ko wax mukk lu baax ci nga lu bon génn nga ci ku bëgg a baax ci nga ku bëgg a bon génn nga. Hmm. loolu leer lu yàlla diglewu mhm. du ma tere lu yàlla terewul mhm. yéen ñi nag ak ñiy ñëw kenn ku ci ne ba ngay ñëw sa du yàlla dama la jox ñeexalu ma ne ci. amalu leen ma intérêt maa leen amal intérêt maa wax intérêt waaye suñu doon wax intérêt. Mhm. ma bëgg leen wax fi ma jaar ku ko mënut itam nga bëgg ki fi jaar ndax yoo ku yow yoon ku ca mënta jaar mënoo koo xàll mënoo ko fàkk ka fay jaar war nga ko ñaanal dig bañ koo jam wala mu fakka salu. dëgg la jaar ci yoonu jub jaarale leen ci. Mhm. jaarale leen ci. maa dugg ci jub duggaale leen ci. sëriñ bu ci toog ab sëriñ ab taaliba ñëw jébul ci yow nga xàq taay doob sëriñ bu xàccee nga mer doob sëriñ yow ku yenu bëri ko ñu wàññi la ci fanweeri kilo boo ca mere yaakaaru sa doole suñ bàyyi ba ko jën ne ne sëñ Tuubaa ni leen mbaa ba ngeen fippoon am na waxtaan woon ma sa waxtaan Baye Cheikh Mbaye yaara dugg ci dëgg la kay mbaa ba ngeen fippoon poon waaw mooy sigaratu léegi rek waa kay mm-hmm. bàyyi bu leen ne nu kaa noonu de musuñu koo ñimee tox mu ne ah doom bu leen toppandoo Cheikh Rafal de la muy saxar du pon de Cheikh tuxut pon waaw am na ñu ma dégg nag ñu wax ni daana tox waaye tuxut woon pon mm. benn yoon la ko laale te doon woon mag ñi dana ne ma woon leen li ñuy gàddoog jàpp li ñuy gàddoog jàpp waaw jàpp boo ko xaw mooy muusum wàggat di xëy di jàpp di jàppi siiroo ki <laughs> <laughs> ñu bàyyi ma xuja nee ñu ni teg mu ni pon mii ñu ni waaw muy day gàttalu fan di xañe wërsëg di taxa dee dem sawara soo amul sëñ bu mel ni man mbaay bi refaal mii nga xay ci kaw la jaar amul fu amul frontière maa wax loolu tey yàlla topp ko dara da koo mbaa yàlla juddu bee rëy mm-hmm. mat gi rëy teeg ca làmbaay damel ca kajoor ka fàttam ma ker gi kaang la faa gi fóori la taatom bi tëf si na alxuraan mu mi mi mus ta moo yàlla yàlla tupp ko dara de ku tëpp ku yàlla tupp dara nag fa mu teg tànkam dëgg ko fay mépp boo ko munti tege waaw bu la diggalee nga def bu la teree nga bàyyi tànku béy bee mu ruux dina def luy saar dum puun jar la xorom polle jinjër poobar kaani gu sew lii lay tox te asma si ko dal wala dënn bi fatt bi ko dal ah, badar la ko dale su taale badar la ko dalee bu taalee loolu bu taalee loolu dënn bi wàcc daani ko ba yàlla fenkelee jant bi yett yoon ci seen saa te ko pënd ba duggee sëñ Ceerno Aysa moom njaa ca la bal yet daggee yunum tànk mu amul yunum tànk daan ne anam moomi Ceerno mi ngi tëngéej <laughs> moomi moomu soxna fat saara ko ci ca ceerin maam Ceerno ko suñ hmm. taa ko jox suñ cerno ay sa ca njaa hmm. ko maa ngi ni mun ko loo xam ci sa waaj yi hmm. loo xam xam nit soxnaam gën la koo xam mun ko yunum tànk de am ko suuxum tànk sa su ween bit boo ko roofee ak fendi feer mbaa wuñ gu tal mën naa jàll te ndax duma nga rocc ko mun ko ba dee baral yaa ko sar taagale noonu aw ma gune ku ne laa gune ku ne laa am ku ne laa am daal ni ko xam nga luy musle ci kër gi mu ko déedéet mu ne ko adab ay teggin dëkk boo xayee am na fa fay maye ku nit a ñàkk dëkk bu yar di maye ku yara di ku ñàkk dëkk bu teey di maye ku ëppal ñàkk dëkk bu gëm di maye dara kuy deng dengee ka dingat doo am dara bàyyi ma xujja nene nu ni tekk rek bàyyi ma nene moo njaay jum mu ni faal mu ni indi leen naanu yi ñi di ko jal ba boo taxawee fee taxaw fee du ngeen séenante mooy ñiy tooxee rek waaw gën yi mhm. maa wax naano waaye gën yi waaw ngir ngir sama classe gi seet xam ko waaw bu mhm. am solo la waaw mhm. andi leen naanu yee ñu indi gën yi cëpp cëpp ak mbuus ak biir dëj bee yi booba biir kët amut almet bariwul boog yi sën amoo ñaari xeer yi ñuy def kos kos nii def ci wëteen wala euh, yaawuru gitax wala mbooy waaw wala mbooy mm-hmm. wala euh, ngëndalul bént ji mm-hmm. ñuy jare wala caxat doomi caxat ñu mm-hmm. jare ba mu ni sën seerafaat ci mu ko ak mu ne doom ak a bon day xañ a wërsëg di gàttal fan taxa dee dem sawara koo mu tug leer di dàq leer kenn gi naaw ak leer hmm. Hmm? bàyyi su ma joxaan xanaa mel ni ngóotu daaw mu ko tuukee hmm. fukki ngóot ñaar ko boole mu baxal ci togg mën naa togg bu laax xanaa koomul mul dara kay te jëmoo fenn yooyu ba leen ko feey bu leen seeni timag muy waaxu te xamu leen lu muy daw ngeen daw topp ca ndax la muy gis boo dee bugg seeni bët gisee tépp moo waral ba bañ defaree fulku ba dub suñ taa woote ci njaarim ni kaay leen ma won leen fulku jibil ne suñu borom naa li woon fulku indi yetti gaal ubbi gaal gi a genn ubbi gaal génn genn ubbi geneen gaal ne ngal teg dem ba koy ubbi ne kàpp ub ñu sëñ yàlla waabal na jibil ne dégg gi doy na dégg ful ko rek dégg turu ful ko yu doy na mm. Cheikh Fall ca kër Cheikh a ah, waaye ndaw doom gis bamba sëñ ba gis ful ko koo def say bët tépp hmm? gis ñaar yëpp gis sëñ bamba jàkkalu sëñ bamba jàkkaloo ful ko ndongo bu ko def bët tépp fi <laughs> moo waral ba mu ko yónnee ca gànnaar am mag mu ñëw dëkk yenu gaalu ful mm-hmm. ba mu ñëwee bët yi wàcc ba ci nuru bakkan yi ci tuñ yi su taari ko xanaa da ngaa yónnu ful ci gaal gi mu ne mu ne ko waaw mu ne ko gaal ful ko ful ku ne day yenoo waaye di su ko yenu ndax gaal gu ma cookee la ba aw cookin <laughs> daal di maam Cheikh daal di wax ni baatu laa ilaaha illallaah bi suñ doon wattu xam nga dañu fekk mu alastu bi rabbikum mm-hmm. mag ñooñu ni ko foo fekk lag mm-hmm. mu ni niwuma fa géejug laa ilaaha ilaaha waaw boobu mm-hmm. am faali yaa suran masulullah uban wala ilaha illallah mm-hmm. saalika falulaay nihma laaw rabbi wala ilaha illallah mm-hmm. lam yoon ani ma baax ana laaw falan wala ilaha illallah mm-hmm. eh, saalika falulaay nihma laaw rabbi wala ilaha illallah rafaxani ila jinaani laaw ca bis bi eh, rabbi wala ilaha illallah daal di indi asbi yàllaahu laa ilaha illa ali tawakkaltu wóoram bu at ati bi ku ko wax yent yoon ci par bis dee la tee demaa jëna ak loo mën a doon daa di wax laa ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi allah akbar mm-hmm. ku ko wax ku ko wax ñeenti yoon par bis booy fàtti du gaañ na mm-hmm. daa di ni allahuma allahuma yaa akramu sali ala sayyidina muhammadin alfatihi lima xuliqa mm-hmm. wal xaatimi lima sabaqa naasir al aq bil aqi wa hadi ila siraatika al mustaqim wa ala alihi xidri moom mi daaril atimi ku ko wax cib jant ku ko wax cib sa yurub dund doo dem sawara so sooy bind ko ci xurta yi ku ko wax doo dem sawara ku ko ku ko sikki sàkk faajal nga tey loolu. tey kenn du ko sikki sàkk. mën mm. naa sikki sàkk de. laa ilaaha illallah. laa ilaaha illallah. Cheikh Ibrahima dikk. waaw ko fabal. mënu ko jëlal. waaw. Cheikh Fall mooy surtout lan Fall. ah di. waaw waay. est-ce hmm? lan Fall Cheikh Fall. tey. wala assuy Cheikh Fall. ante mooy alxuraan rek. waaw tey. moo tax bañ ko ne Cheikh Ibra Fall ndax jàng na xam mu ne yent laa jàng Faatiha Falaq Naas yi Lixlaas. Mm-hmm. suñ taani ko lépp nga xam ku xam loolu xam nga lépp ndax yàlla mooy Lixlaas. ku xam yàlla umpale woo dara. laa ilaha illallah gune yii ni ñu koy defe ak ni ñu koy waxee mënut ci yegg ci yàlla. Mm. déedéet nes ko war di waxee. waaw laa ilaha illallah. Mm. waaye amul xaaf amul keef. doo ci dugal mbóorint doo ca fo doo folklore doo jaxase góor ñi ak jigéen ñi ku ne fecc bu dee na ko mag ñu daa defee waaw loolu ñu yitteel de kuréel dëbbkat yi ñaar la doon mbaa ñett bu ñu déggoo seeni baat déggoo bu loolu kenn danginu danginu waaw nga xay kenn ay kenn ay jolli ñu seen aw ñu war a léeg ñaar fukki nit awokat fa ki ca mujj jigéen ñaa cay ne te góor du leen rax wala ñu gappro fi benn barab muuru bu ñu waxee ñu aw tey mhm. waaye ram jëkkoon ni bëccëg sëpp mhm. de mhm. jigéen ñi takk ndombay baat sol colob góor ñeneen ñi gis naa ñu dog yi ci ci ci ci sëri naat <laughs> def ndoom baa baat ndoom baay loxo mm-hmm. takk sa bopp laxasaayu waaw <laughs> bu ke keccee aw nii kii fecc aw nii te duñu wax laa ilaha illallah laake laakaa la ñuy wax walla laaxi laaxaa doo ci yegg ci yàlla moog cérémonie yem hmm? waaw moog cérémonie ñoo yem kenn du ci yegg ci yàlla léegi bay Adama sànq da tàmbali daaj tudd nga si ñaar. ba faram fàcce ko. yeneen yi day ñëw de. wax nga fi waaw ndax wax na fi wax na fi nag leeral na fi léegi lu jëm si carrière. leeral nga fi Sam Fall. lim nga fi lu ëpp juróom kañ. daaj yi bari na lool. waaw boobu léegi ot otoraay bëggoon nañu ko xam moom. Hmm. déggoon naa seen doy daaj ko. Hmm. Hmm. ba ba ci tudd Mbacke yaay xëri Diop. waaw ma ngoog waaw tey sëñ bi alxuraan suñ bas nga xam ne moom boo ko masaa wax hmm. soo ko nee na gaa yi ñaan mu ne du ma ñaan loo koy tudd yàlla ndax boo ko nee bàyyi loo koy jàppaloo hmm. eh. te koy naan boo màndee bàyyi hmm. te ndox mi mandi nit laa laa gën a foor kon koy wax ba jana gaa yi toog fi mu ne moom koy daajee Otraay tey jii bu ñu bàyyi ren bëggoon wax Otraay mosoon ñu si dara Otraay. waaw Otraay moom. Hmm. gune yi mënuñu koo daaj. Hmm. waaw. Hmm. laa ilaaha illallaah laa yaama doy dafa tee soo jaay mbaa nga yow ñu dañu mbaa nga yow ñañ bu juree soow ma mare yaa doom ñañ bu juree soow mu bari du yooy du xiif du loof du lompañ <laughs> il faut que yóbbu mu dem. waaye gune yi laaki laaka yi la laa laaki déet déet euh. ñu dagg ab tuyau foor ko mu keleng-keleng yi tey te pakk ak caaj yi mag ñi dugal bokkut ak lii mm-hmm. hmm? pakk caaj waaw tey waaw hmm. sëñ Njëga Juuf daanañu dikk tubatul ba yàgg gaa yi indi pakk yeeg caaj yi moom suñu laay ndarang fii waa peeku ñëw mm-hmm. nga xëy ci pakk yeeg caaj ci la ñuy waxtaan tey hmm? waaw. patak ceeb waaw. ci loolu. nga xëy booba bàmba ji melagut nii nit hmm? ñi dégguñu wolof. Hmm. waaw sëñ bi war na force bu xongu ñeenti tànk yi jëbb. jëb a xaalis moo ne bilaa mën aay wala taay boobu foofu la ko gaa yi daaj. waaw. tey <laughs> am de. maanaam ñu dagg di jébbalu léegi nga jàng téeméeri may wu juróom fukki si mbii bi. ak ñeen fukki jës boog mu xaddamaat ak may bu kenn du jëbbu ndax kenn du daal xam xam waaw man ngay dégg naa ca seeseen rek waaw baatu bi laa mën a yi rek mas nañ koy wooyantu ci seenu gàmm waaw seexeru doxantu ba egsi waaw na seen turu yàlla yu da jaaxal na ma waaw ah turu yàlla yu faal xamul moom yàgg man waaye borom bilaa mën a yi moom gis naa mu bàggati seen biir ay yoon waaw bilaa mën a rek te bilaa mën a xam nga sëñ boo ne foofu xonq ñeenti tànk jëb jëb ak a yi walante ay ponkat jóoru ci ndax ci kii yóbbu ci kaw garab daal. Hmm. kii fekk am ñu mu taxaw mu daal mu dugal ci biir. ci benn bayit ci waaw. Hmm. ah. yi jàng ab lim te kenn du yëngu. kenn du yëngu. kon ndax man ñee dañoo gëmoon ki ñuy waxal. <laughs> Ah. ñii di sikki sàkka ki ñuy waxal. Ah. wala ñu teg ki fi mag ñi bàyyi ñu sàggane ko. ndax jàng fukki mooy wala juróom fukki ci ndi di wala nga jàng jës bu mu xadamaat ab lim hmm. jës bu ab lim. ni tuteet maraaxit mhm. jàng ko ab lim di sikki sàkk ba xam sëñ Muntaxa mooy sëñ Tuubaa wala déet <laughs> wala doomu Cheikh sëti Cheikh Rafal yi fi ni ñooy Cheikh Rafal wala déet am na ku ma sa ma sa mu ni ma su yeboo Baay Faal ma ne ko pour lan mu ma la ma naan kooku man ñëw fi ma ne ko yoboo ngeen róoji yéen <laughs> ndax li suñ Tuubaa ma ne kooku man ñëw fi <laughs> bëri ko ndox képp kuñ ci cëppeel nga faatu waxuma la géej te Cheikh Rafal la mag ñi doon def nañ ko ñu gaa yi gaa yi fi bàyyi koy def gëm te gëm te fàggu day fàggu te joxe li ñu yor sëñ mu doomi te day nekk këram bu ndigal ñëwee te fi mu ne te fi ne jamono jii nu toll tembe sëñ Cheikh jëmb laala ni moo fi teg tànk mooy Cheikh Ibra Fall bu ndigal ñëwee mu fàggu fàggu mm-hmm. moo fi gën ay jëwriñ sëñ Fall Fall sëñ Moussa Mbar mm-hmm. jëwriñ yëpp bu ñu mel ne Moussa Mbar génn kër du yëgu eh. barke jëwriñ yëpp laal la ne hmm. kilifa yëpp bu ñu amal jëwriñ yu mel suñ Fallou Fallou suñ Murim Tall suñ Moussa Mbar ah. dégg nga wax bi benn kër du yëg foofu baax na de baax ndaxte lu bënn ñu darañ ko lu foddi ku ñu foor ko hmm. lu xotti ku ñu ñaw ko lu la la ñaaw ñu rafetal ko hmm. lu salte ñu bare ko ku gëmuñu delloo sa gëm fa nga neen ëpp la doole ëpp la xam-xam ëpp la alal gën laa yaru gën laa teey gën laa maandu gën laa yar seen i wax ak seen i dapper ak seen toogaay. te ñoo sut gaa yi nag. <laughs> fóor yi fi nekk di wax. sëñ Sambar du ma seen morom. fóor yi ñu fi nekk di wax. sëñ Fallou Cheikh a leen raw. Mm-hmm. te ñu wut yëngu. te bu la rombee ci mbedd da ngay defe ni kii moom. daanaka xamoo fu mu jëm ngay wax. sëñ Fallou mu sëñ Cheikh Fall Khadi sëñ Cheikh Fall Khadi Moustapha te keneen bu la rombee da ngay fu mu jógee. yow néew ci ku leen raw néew ci réew sëñ Lam Fall mu Serif Assane. mu Serif Assane bu baax sëñ Lam Fall mu sëñ Serif Assane. moom moo raw gaay siyaar bu baax te day takk der gi. ñu liggéey sëñ Touba. te sëñ Dame Sylla mi rawoon ci ci ci conférence yi sëñ Dame mi fi rawoon. Mm. sëñ mu doomi taa ko jàngal. Eh, hmm? waaw Dame Sylla mii faatoo ci gaar bi. Hmm. soo wëlee leen sama xarita mm-hmm. waaye sëñ sëñ mm, mm, euh, sëñ Moussa Fall Fall moo ko jàngal. te bu sëñ Modou bi te toogee da nga naa amuñu tànk waaw ah. te Aliou boo doon jàng nax ju toog fi sëñ mu bi te bayit woo bàyyi sëñ Modou bi te mel nii nax ju mint mooy sëñ Modou bi te soo ko rombee doom yi koo jëkk yem nax ju la mm-hmm. boo ko rombee doom ku mu la boo ko rombee nax ju la ku ko gis mu neex la ba nga di ko roy ci waxin mbaa defin mbaa toogi nit nax ju ji taxawaalu nga mm-hmm. ndax suñ taa daa woote ci njariñ Hmm. nee na suñu Omar Bousso mu ne maa ngi nii Yërim Fall ñu ne comme ñëwagul ma nga àtte tooñ hmm. àtte tooñ mooy boo jéggee raay bi dem kër Seex <laughs> ah. waaw boo jéggee boo jéggee jumaa yi njeeneem jéggi raay bi dem kër Seex fekk weeru koor la da nga añ par hmm. ah. Ah. moo tax ñu naan àtte tooñ waaw moo tax sëñ Baye nga naan na du ma jéggi raay soo soo jéggee raay bi yàlla na fi yàgg waaw soo jéggee raay bi ñëw ci jumaa ji par force da nga mbaa ñu duma ah. moo tax bu weer koor tere kenn du jéggi jumaa ji jéggi raay bi dem dem paale kenn ñu tudd ko atte tooñ añ rek kañ ci woote boobee hmm. ah ci woote bi ci woote bi mm-hmm. sëñ Tuubaa Bay dar ko sëñ Njaay Rokk mu sàmm Njaay Wakki sëñ Ibra Ngoone Njaay mm-hmm. mag ñi daal mm-hmm. mu mu jub mu jub sëñ Tuubaa jàpp juróom-ñaari njàpp ci yoon bi. juróom-ñaari njàpp ndeysaan mu ne ko faal lii la. mu ne kenn mu tudd sëñ Tuubaa wala nga di ko nuyu. wala nga toog moom ci suuf su mu toog mu toog ngay jàpp. bés mën naa roonu seppi suuf yëpp des ko doon waaye wul si toogandoog moom ci kaw. diggal loolu. moo tax sëñ Tuubaa Cheikh Fall musta nangu mu toogandoog ñi ci suuf. <laughs> wala mu làqal ca kaalaam lal wala mu indi basangu digit mbaa barax mbaa mu indi romb jaan waaye daal faaw Sëñ moom toog ci dara beru il faut mu ah, toog ci kaw basan waaye bu toogee ci suuf si Cheikh Fall du toog ndax daanaa du ma toogandoog Sëñ Tuubaa buy bëgg at génn àdduna yi dani ñetti na ngeen ko gas ci suuf ndax bëgguma tolloog Sëñ Tuubaa armel ci suuf ci ci mbootaay dëkk loolu ak jox war ma sëriñ moo hmm. moo tax Sëñ Tuubaa bu yomal xeyaamee bu ma nee perte bu ma neen yàlla ne naxee mbaay may leen naxee mbaay Cheikh Fall doo ngay perte ñu si ñëpp wuti jullee koor ak wut leneen ak a ngi si ñu ñëw toog. Mm-hmm. mag ñu ne ana suñu Omar Boussa moo suñu Omar Boussa moom maam di wàll yu judd wut ci Sénégal mbaa Afrique. mbaa adduna suñu Omar Boussa waaw. ndeysaan ci taar baag mm-hmm. xam-xam gaag maandu gaag sell gaag mm-hmm. yegg gi ci yàlla ngërëmul yàlla wàllu yu gaag yépp mu dëxañ ko topp sëñ Tuubaa leen la ji Malick waxaat ni sëñ Mbacke Bousso la mu xam la mu gis ba topp sëñ Tuubaa ak sëñ sëñ mu dem mm-hmm. lañ tu gis ba topp sëñ Tuubaa ku ko gis da ca topp ndax bu doon araf du dem mm-hmm. tey tey mu ne sëñ Amar ne Mbacke mun ko jógal taxaw mu jógal mun ko tarjumaani naaju ba ci jumu ji hmm? jàng ñetti wooyu ba ko ñeenteel sëñ Tuubaa ne xif mooy taxawal hmm. ñu taxaw muy déglu leen Amar Bousso bëyit bu mu romb ku ni melut wutil ku la yar ak ku la defar defar ko waaw mu jàng ba tër juman jëkk bu ci ji mujj mu naan Ibra Faal Cheikh Ibra Faal ni bërit ni daal ñetti yoon mag ñi car ko mel ni xayma mu ne yaaram mu ne faal mu bu ngeen doon yaaram da di wut bindukaay ak këy <laughs> mhm. bu sëñ Bamba waxee ngeen bind ko su ma waxee ngeen bind ko doom dañu dem ba jamono nekk nu mooy gën a jafe tudd nu itam mooy gën a yomb am na xam nga xam junni moom am junnee ko gën ah loolu de dëgg la moom loolu de dëgg la <laughs> daan ni doom mën a waaraate ku la gis waaroo ko gën dëgg la mën a seet aajo aajo ji fi yow fa faju moo gën hmm. daan naa doom bu leen doon sëriñu hôpital sëriñu hôpital bu leen ko doon doon leen sëriñu pharmacien hmm. hmm. waaw garab yëpp fay jale ki koy jaay day si luy sa xay te kenn du dagg kenn du nàcc kenn du bopp kenn du dagg <laughs> waaye ku dugg da nga bàyyi xay dooru <laughs> da nga gis koy waccoog ku biir bi daw ak koy mu naa yàlla bàyyi ak lu mu lu mu diital hmm. ko doom te ba ko fa soo ko doom da fay farang ba nga dem mu fab loola diisal ko ba ba fa <laughs> rek a mën a jàng de waaw Cheikh Fall li bëri mag ñi car ko suñ taali xool leen Ibra Fall kawari bopp ya ba ci tànk yi ba ci wey tànk yi mm-hmm. kere ba mu ñu jox ma boppam ak léegi musuma dégg déedéet te musuma dégg mënuma ko ak aw ko musuma ko fekk ci li yàlla gërëm mm-hmm. xalaas ku melul ne kenn defaru la mm-hmm. gaa yi xiilee ka xaara naan ñàkk a julleeg ñàkk a woor <laughs> taatanum lay la boo tamee paan bu naaju tàngee nga ñàkk taatanum lay waaw Cheikh Fall ku ko digal dem sawar. waaw man chaque fi Ibrahima Fall. ku ko digal ku ne. loo julleeg loo woor te bëggul Cheikh Fall ngir suñ tubaab bii da ngay dem sawara soxna Sudaan moo ni. soxna su gaawaan. waaw moo ma ni boog maa maa gaañe. waaw Adama ñu ngi xanaa xanaa. mag ñooñu. Mm-hmm. bokk li mën day day bari. Mm-hmm. mooy groupe bu njëkk ba rek. groupe bu waaw. Mm-hmm. mu ni Cheikh sëñ Tuubaa de nee na. ñu ni waaw Mbàkke mu ni bëgg leen Cheikh Fall ngir li ma bëgg. bëgg leen Cheikh Ibra Fall ngir li ma ko bëgg bëgg leen Cheikh Ibra ngir ngeen xam nu ngeen may bëggee bëgg leen Cheikh Ibra ngeen xam ni ngeen may toppee bëgg leen Cheikh Ibra ngeen xam li ngeen may gëme daani sëriñ boo dem fekk ko fa xondal ak yi mu taxee nag jub xocc ak ragal yàlla du sëriñ <laughs> donc bu ñëbaale sa sëriñ ragal yàlla doo taalibe murum sëñ bi nga mbaamam ngonko la ci kër law ba day sëbi ngaax ba daara ñu duur koy ngor bu wëtti bu ruuree làkku jàmm ñu duur ko te du su ko wëgg duñ ko xont boo jibul yóbbul gëm yàlla la serafal bi muy jibul seraf sëñ tuwaa da ko ni mm-hmm. jibal naa la saa bopp ëllëg alaxira mm-hmm. moom serafal mm-hmm. ba mu def yett mu ne ko yan yett mu ne ko sama ngor sama fit saa jom sama ngor laa lay liggéeyale sama jom laa lay si yaa laa koy yeggalee sama fit laa koy sàmm sàmmal li ko la jalgati mu jalgati ko. sëñ waay jëlee suñ taarix Ibra Fall boo génnee ci mbedd mi loo kool sam xel ne ci moom nga bëgg ko may naa la loola. Hmm. mun ko téyel saab xol ak xel. Hmm. ba mu ma yittiwoo ku dul yow ba ma gis ku dul <laughs> te billaay mi ngi nii tiim waaye Cheikh Ibra Fall mii xamul sëñ Tuubaa xar kanam bi daa ñuul wala daa xóot wala ni bët yi mel. jaaraama macha moom ba muus di aji ñu ne ko kaay aji màkk mu dem ba ca ñag ba dajeeg muus mu dajeeg jinax hmm. moom jinax di ni banax ci ñag bi fekk muus boobu di tëru mu ne kii kanam muus ne ko mën a fekk daa gëm ndax ñi mu koo xool mu ne banax ci genn wet gi raw ñu ne ko muus bi nga dajeeg jinax bi nga dajeeg muus ci ñag bi ngay aji muus xar kanam bi nu mu mel mu jotuma koo seetlu ndax daa gaawtu <laughs> xam naa fi ndaje moo xam waaw mais fi ndaje moo xam jotuma koo seetlu damaa daal di wuti rek man tey waa Cheikh Fall mos ta xam xar kanam Sëñ Tuubaa ñii la mel wala la mel <laughs> te nag Sëñ Tuubaa mëstëf ma ni sëñ Tuubaa ragalul ku yàlla bind ba lay bàyyi ci lu yàlla gërëmul te kenn amalul sëñ Tuubaa intérêt bu tonn bàyyi la ci yàlla def bàkkaar te Cheikh Fall bàyyi na julli yetti at seen Tuubaa door dem ci géej hmm. ah. juróom fukki bitig la su ko amee di yelwaan juróom fukki bitig xanaa amoon na ko ndar waaw def na ko am di yelwaan waaw tey ah? bitig bu nekk ponkal ne faa ko koy wat ko koy sekkal tekkal teew hmm. kon wax kon kon juróom fukki biti ak juróom juróom juróom fukki nit. Mhm. ak téeméeri nit kon. ñuy wa tool tool ba li ci nekk téeméer la ak ñaar fukk ak téeméer la ak fukk ak ñeent. Mhm. sardin bi. Mhm. ba góor noonu bi mu woppi woppi xam nañ ko dellu di gis gis gàncax. Sëriñ Faal daañu ko fa bara. tey kooku nu mu yelwaane. waaw ah, mu mës ta teg ci loxol suñ tuwaam yelwaan. mu ko musta te diglewu ko it liggéey la ñu liggéey rek. waaw. waaye dund fu ne mu ne fa naan daraame. këll bu ne mu bees ko nit kuur ko ne mu dóor ko fi barab déedéet kuur gi mu yoroon jalambaan la woon hmm. te suñ taa daa xam ba matt mi dañoo xam ba matt mi ba mu noppi ci Daaru Salaam ëkk gi des fi mu fasu suñ taa ni ko lii de mën naa mën naa mën naa gaanaayoo hmm. barkeeloo ko kon serafal ngàbb ko waaye mosu ci jóg gàllaaj mosu ci jublu ak lu muy xeexe hmm. waaye lu muy dóoree wég gi mu wég yàlla wég ko sëñ Tuubaa ak yonent bi moo war a ku jëlloog sharafal sax doo tala wég bëgg ba doo doo doo ko takk ci tuba yi sukk fi kanamu sharafal boo noppi tuba tuba ji redd kenn mu takkan sharafal ci tuba ci moom kenn fas ci kanam déedéet ku fas tuba ci tawet booy noppi muy riddi boo da sa pas-pas day fas ci pasam ci pasam rek moo tax lu waay bëgg ci sëñ Tuubaa boole woo ci sharafal su neem baa ngay liggéey mm. da ngay da ngay sport waaye liggéey loolu sëñ Tuubaa kon du ci nag ci laa ko boole. waaw d' accord. waaw d' accord nañ koy. waaw nangu nañ bàyyi dama. waaw. Hmm. léegi nag dama bëggoon. na hmm. ñu ñëw ci Zikru laa dëgg-dëgg. ndax dama bëggoon ñu tëjee Zikru laa da nga ñu yëkkati nag air yu ndax yow ñàkkul air yu la yoo xam yu la marqué woon. yoo xam ne daa nga ci yëg seex yi bu wér a wér a wér boo ko masaan yëkkati dana am mu la yóbbu waaye bala ñu egsi foofu dama bëggoon nag ndax mag ñi ñuy waxtaane dafa am ñooñ dañoo ne ci du ma ne sax ci gone yi dañ bokk hmm. waaye nag ñooy jeexital yi mag ñi ma ma defal la benn sélection tuuti rek. pour kenn ku ne nga mosal ñu ci dara. Mhm. bàyyi Adama Niang Wakana naqar xamoon nga ko bu baax. waaw sëñ Lamp Ndour te teewaawoon. xamoon nga ko bu baax. waaw Kase Alkati xamoon nga ko bu baax. ba ci bàyyi Talla Niang mu piir waaw ñii am na pas-pas bu nekkoon ci ñoom ngeen daan ànd. daan liggéey seex bi di ko yëge yëgin woo xam ne tey jii. Mhm. mën naa ne gone yi jeexital yooyu lañ topp. te ñoom it ca jeexitale ñoom Baye Tombak Baye Mor Ndiaye dànk ñoom lañ topp. Ah. ñi defal defal ñu tuuti rek lu mu gàtt gàtt kenn ci ñii lan ngeen ci mën a indi. benn tënk rek. ba xam nga ñoom. waaw tàmbale ci Baye Adama Niang Baye Adama Niang wakkaan. waaw maa ngi ñëw. waaw Adama Niang pousse la. Hmm. waaw mu fekk ñaar ñu tàngaloo mu boole ko. ndeysaan tey ak am solo. Hmm. ñaar ñu xamantul mu xamale leen. Hmm. ñaar ñu àndul mu àndale leen. jaral na ko dagg paas moom yalwaan bu fa am xaalis paas bee dëkk ak bee dëkk. Mm-hmm. pour xamale li waroon mu dem xamale li xamale googu ci la manqué li ñii nga wax mm-hmm. waaw boo gisee bas bisub suñ bas alxuraan bi. Mm-hmm. duma ci xuus. ndax euh, at yi yëpp ñi ciy wax. waxuñu original bi. waxuñu ko. weddiwuma na kenn. ku ne na nga xame ngay wax. histoire it moo mel noonu. bu jugee jógee ku ne na ko gëstoo nga koy xamee. ku ne na ko déggee nga koy waxee. waaye histoire màggalu gàmmoog Serapal ci fukki fan ak juróom-ñaar ci gàmmoog. ñu gërëm ko Adama ña nga ko jëkk laaj te xamu ko mu ñëw taawan ñu ànd ak làmp nduur Babacar Mbay Njaag Sàmb Moussa Samb ca prix boobu elew la Talla Dieng chauffeur Abdou Karim Fall Abdou Karim Fall ñu ko soxna Fatim Mbacke Tiwaawan mhm. moom sëñ Abdou Latif moom Mamour Diarra mhm. ñu nañ ko seet mhm. ñu ne nan dem Ngaay kër Modou Guèye magi Cheikh Guèye nga jawaat lañ dëkk di ko gëstu bañu ni kon nan dem Touba Paleen laaj ko mag ñi booba am na ku ñu xoolee Sarr hmm. dëkk ci ginnaaw teewoon suñ bés alxuraan ab sëriñ ñëw da ko daa gane di gane si euh, Mour Gueye moom di gane si Cheikh gi hmm. ñi nan dem ci moom comme moom sëtu Cheikh Fall la suñ mbàkki Fall la guddi nañ dem seet ko hmm. ñëw mu ne ah bu leen dem ci ku waxaale ci jëndut de di ko laaj. ku waxaale ci jëndut. waaw ndax dem ci magasin waxaale saako ceeb ba noppi te fa yoo borom du tax a yóbbu ceeb bi. Mm-hmm. marché bi ka yenu ceeb ba naa saala yaay mbaar ñu fay ko fukk duñu am koo një bu leen dem ci koo koy laaj. <laughs> Mm-hmm. leen ci ku Cheikh Fall gërëm mu wax leen. c'est ça moom sëñ Bassirou Fall alxuraan. waaw moom sëñ Bass alxuraan. Mm-hmm. man nag fii laay toog nég leen su ngeen demee ba ñëw lu ngeen wax te du dëgg daa koy xam. ci sëñ ndax suñu borom moom wukki na samay bët ak samay nopp ak sam lu ma xool dinaa xam na cay dëgg kon de xam ne dafa bu ñu wula wax waaye ndax nee na du ma wax maguma ci paafaal yi mhm. rawuma ci ëpp ma fi mbooloo mhm. te kilifa laa fi am te du ma jiitu saa kilifa kon laaj leen ko ci donga yi donga sañ na lu sëriñam tëñu nu baabu mhm. daal dem mu génn mu fab fukki doom ak juróom-ñaar fukki jor soxna jaxate doomi sëñ bay jaxate ji mu yaa soor a jaxate ne ko bu ñu delsee te waxuñu fukki fan ak juróom-ñaar ak bés ba dañuy fen eh. dem ci bàyyi tomb hmm? bàyyi tomb ni fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmal waaye xaw ma bis bi hmm. aadama yi ni ko ah, ko xam fukk ak juróom-ñaar kay war a mu ni mu <laughs> seen morom ba ma jóg seen bàyyi jógut hmm. ba ma Cheikh Rafal di bind bi yàlla bindee doomu adama yëpp sànni ko xëyuma gi man la bind seeg <laughs> <laughs> bay tomb waaw te la ma bind talaata lay faatu ma xam loolu koy xam naa leneen waaye daa ko sëñu dama am kilifa ci kaw foofu eh. hmm. sëñ sàkkoone saab sëriñ moon njaay danga moo ma tërbiye moom lañ ma joxal mooy saa jëw yi may wax ci seen kanam dama wax fukki fan juróom ñaar la waaye xaw ma bis bi ndax jëm dàng njaay ci ginnaaw baaba garas mm-hmm. Moodu Njaay doom jaa fii ci yëmbal waaw sëñ mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> bu baax ñëw <laughs> daal dem gaare ab SS euh, mu ni lu ngeen di dox ñu ne ko bisub Cheikh Rafal bi mu amee ngërëmul yàlla ni seet mu ni rëpp ci suuf ni yéen ay gone ngeenam ak mag mu yàlla am mag mu yàlla yónni ngeen liggéey yor yàpp goneem déet waaye doom jaaxalu leen ma ay yéen a magam sikkim ñaar fukki at ak juróom te doo di góor ga ca yéen ya dégg la góor ga ca sikkim ba ngay dégg lay lay lay ah ngeen ni lan ñun mm-hmm. waaw lu ñu leen ci wax ñu ko bàyyi tomb de ne fukki fan ak juróom ñaar ci weeru gàmmu la waaye ne xamul bis mu naa day kàcc de te <laughs> xam loolu xam na la ca des hmm? waaye dama caa séddu cir képp séddu cir suñ mu demati moom yoon wi <laughs> waaye dama la wax bis bi de te neexalu leen ma hmm. Adama Niang ak groupe bi nu àndal ne ni ko loo bëgg ñu neexale ko Ibrahima Boye xaw Balla Juxaane hmm. Moussa Gueye foofu see nekk Thierno Diop ak Kassé waaw alkaati Bamba doom ji bëkk dem gis naa ko làmp waaw ñu ne këll bii day daa yéeg ci kaw lal bi taxaw ajib këll ca pujum nee ba mbuus mm-hmm. mu mu saako yi sumb lu jëkk yi këll bi def mokk mu ne ma lii këll la ne ko waaw mu ne suñ caako joxoon seera faal siimal ko ci cere mm-hmm. mu amee juróom fan ba yóotu fukk te lépp mm-hmm. ko ndigal la mu lekk ko ba noppi raxas ndab li seera faal suñ caari ko fabal ndab li ndab li man tomb ko jox ndab li daaf ma ñoxoo suñ ko defaree ba ma siimaati cere ndox mi séenut mbaa meew ndox mi séenut ma lekk cere ba regg ma wax leen bis bi dafa leen ci lu góor mënul loolu ñu fopp këll bi taxañ ko ñëw Dakar hmm. ñëw géej way fekk alkaati Bamba fayu soldam génn dundub kër mu dese fanweeri juróom ñu jox ñu jox ñu jox ko tëgg buy tëgg xaalis mu ŋànkaat ko ba def ci meew def ci ndox seen mu meebaat këll bi bomb ko ba mu set muy melax mu yëgut ko bàyyi dàng dàng njaay dëgg mu ne euh, Fatou Ndiaye mu ne mu ni Ndiaye mu ni indil ma cere te euh, coyam yi jooju ñu indi cere jooju mu ubbiwaat geneen gaal génne mbuus sëkk ci loxob cere bu wow boo xay boo ko sànnee rek keje keje gi ndeka cere ji sëñ ko si mu jox ko bàyyi dàq mm-hmm. tey mu ne ko caay ci këll bi muy meseŋ meseŋ mm-hmm. mu yaa di sotti ndox ñu tas ko ci xare yi ak buy yi meew mu sotti ci yëkkati taaw ko nii daal ni alhamdulilah fi saani bamba yetti yoon daal teg fi soof dara seenut mu fas fas fas baa mu jox ma sas rek jox jox ko sas la mu sotti ba mu fees mu ne tëbb naa ko naan leen ko ma tëbb seen bàtti hmm. dëgg loolu waaw mu lekk cere ji raxasoo mat na ko kat <laughs> mu ni fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm asamaan sedd taata hmm? alal ba de yéeree la jox sëñ mu numbe sëñ mu numbe yóbbu mm-hmm. fii ci daara kaamil sëñ mu numbe yëf fi daara jooju ba fi ñeenti téeméeri sàq ak juróom fukk mm-hmm. ñeenti téeméeri sàq ak juróom fukk hmm? sàqi fukk sëñ taa séddale la ñetti téeméer yi téeméer beeg juróom fukk bu ne ko bokk ko yaag daar ji ngeen dunde ko mm-hmm. boobu ba kay ngay weesu mbax daal daara si mu numbi ndaamaatu ndaa daaray sëñ Abdourahmane Lo mm-hmm. ba kere ngay dem maye land ak daaraam mm-hmm. li ko tàmbalee teen làmp mm-hmm. ba ngay dem te ginnaaw Daaru Salaam euh, ba ngaa càmb ak ak ak euh, afe daara daara si daara si rafaa ah, teenu làmp waaw teenu góora waaw mu ne laa yàqin jóob gasal ma ko sëñ laa gas ba fukki mètre juróom sëñ ma gumba sàll ne ko du bënn mu bëgg a tàng mu ne ko bul tàng buy bënn doo la fi fekk doo ma fi fekk dañuy fekk faatu waaye ndox mi ma gis muy wal ay jaana di ko buusu fii ci mbedd yi mooy raakol yi robinet yi hmm? nga bëgg sañ ci du dëkk du daara du xumb hmm. dangaa bàyyi dëkk bi ca kanam la dëkk bii ne ñu dem fa toj ndaam toj daaru manaan toj daaru minam toj madiyaana kër sañ sañ soyu dikk toj guy mbind wóoy jumaa yi toj daaru manaan dem sañ ci muy daara ñu toxal pël ba moo jur omar omar dem jëm yi jàll caafaali fala sañ <laughs> maam Thierno bàyyi fa suñ muur fay fetto hmm. tey am na kàddu gu ne ci suñu pénc ma te quartier maam Diagne ñoo kàddu Baye Diagne kàddu mbëtt la tuddoon hmm. gone yi dañoo dàq mbëtt daara ji waa donga yi ba duwal ko ci taatu kàddu gi ñu gas ko génn ci juróom yaari mbëtt ci menn pax hmm. biñ ñëwee ba di ko togg ki jëkk a coppati ci genn bi ñam ko ci taatu taal bi la sedd guyi ñu gas tiggi daara ji sotti ci mbana gi rob ko dem robi guur si ñu ko kàddu bët kenn du laal mm-hmm. loolu ci Tuuba waaw mu ngi ci moom laa pencoo maa maa gaañi mm-hmm. kee moo sang sang njaay nii mm-hmm. moo jëy bay penc ma at mu ne ba mu mel ni ba mu ne ba nax tey ba dama bi waaw bu njëkk ba waaw ñii dañoo dellusiwaat mu ngoog <laughs> ñooñu daa mat. waaw bu bu eh, bàyyi dama ah. xam naa lii sañ ñu ko sax waaye nag eh, mbokk yi xam ngeen ni. Ah. mbiri programme moo demee noonu. man dëgg te waxtu wi jeex. dem na yàgg ñu yëguñu ko sax. waaye nag sëñ Mamour dafa dugal loo xamante ni moom. Ah. xëy na eh, incha allah bàyyi dama yàlla suñu borom doole yàggal. incha allah ni ñu may tey. Hmm. incha allah seen naa leen ñaanaat nañ leen ko beneen yoon rek. waaw mooy mooy <laughs> dañ ko xaw dañ ko xaw a kii tuuti dañ ko xaw a dalal tuuti rek. Ah, ok moom moom xaw a kii tuuti waaw incha allah. Ah. dala suñu borom dool lay yàggal. te tee kàttan gi bu baax baax ak wér gi si barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngay waxtaane waaye sëñ Mamour daa dugg ci. daa ji faaw ñu dëkk ci. waaw sëñ Madiagne lijjantul ñu ndox maanaam sëñ Mamour dafa dugg ci daaj mm-hmm. yi nga wax sànq. daaj yoo xamante ni daal yooyu gis na ni baay Adama jamono ji muy sikar daaj yi mu daan ëpp li mu daan indi ndax na xam ngeen sànq sëñ Mamour wax na ko mhm. Baye Adama mi da daan toju baas xaw ma baas yéen baas ngeen daan am de ay baas waaw waaw daanam gisa duñu xaj ci baas ñu kërti niñ ko moom <laughs> ñu barbar la wax lii xiin yi dugg ci biir <laughs> daaj bi am laay sekk jëkk daaj di ko yóbbu ci programme muy baax borom baax waaw mars seng lañ ko aw asamaan set mu yóbbu mu jëri baax baam yaay laay laay laala. ndeysaan laay laay laala. non noonu. maa xiin yi daan dara bàyyi waaw xiin yi. waaw boobu. cóol ak birim ndànk rek. cóol ak mbëng mbëng ak. waaw ganna sax. Mm-hmm. tongu nekk xeet yooyu. waaw. pour mu baax. waaw. baam yaay laay laay laala laay laay. commencé ba maas yi nga gëddar ñi. tey <laughs> est-ce que. waaw baax a baax si Ablaye Seck. waaw bu boobu. jàmbaar la si Ablaye Seck ku yaru ku baax. Eh, ku la. daj boobu ak beneen. waaw. Mhm. benn bi mooy carrière. Mhm. Mhm. carrière. Ah, nga xëy mag ñi dañuy xàcc ci njëfandikaay li. di dóor. laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah. ñu aw nga xëy bàyyi baaram bu mu jënd di daaj loolu. waaw. Mm. Uh-huh. bay baara mbub waaw moom mu jënd di loolu daal mhm. bi sëñ baaba ngoom lonkaan la ah, waaw lonkaan ngoom waaw ci tey mag ñi mhm. bu ko dee waa pékku bu ñëwee pakk yeeg saaj yeeg yëf yi sëñ bi laay jiitu waaw am du laay xaadiro mu ko ne góor gi mu ko dañee taalibi sëñ mu jàngara ak góor googu mbay soldat bi mu fay rendu sel yi <laughs> randu sil ak yéeg a topp. ak yéeg a a topp baadam mooy yan. yéeg a topp baadam mooy yan. Ah, ah, na yàlla na suñu borom yàlla fan yu baax a baax wax dëgg yàlla fi ne moom a ngi doon noos moom wax dëgg yàlla la bëgg nga bëggam randu ko randu ku la bëgg nga bëgg ko randu sil nga bëgg ko randu sil bu ko dee yow nga jolli gars yi aw fee ko ci mel ni Maama a ak Thierno Diop Ablaye Faye bu bu ñu wëree yaar yoon ak yett rek kenn des ci biti ñëpp a jaaxal xorom seeg doole jéeg ndaanaane geeg jongee gi yoon wi waaw si da cee baax doo réew mm. waaw da ngay pànk bañ a mm. mm. neex da ngay pànk mu gu jëkk da ngay pànk doo réew mm-hmm. tergaal ngay dugal mm-hmm. ak njiit laa yëpp léeg-léeg dañuy dégg régulier waaw bu ko defee nga takkaayu waaw fab fab kii def nii mm-hmm. def ko def ko nii mu wàcc mbicc mi wàcc mii mbacc wàcc nii nga tegu der mbaa nga teg laxasaay teg ci xaftaanu tergaal gëmër jim waaye lu lu lu sérieux waaye ndeysaan ko defee nga jiital poul bassin wala sérieusement mbënn mm-hmm. waaw doo doo peñe sa kawar doo ko wàcc mu mu salfaañoo ndax Cheikh Rafal ne boo peñee mel ni sa sumaan mm-hmm. boo salfaañoo mel ni daf soo ko tëral sang koo jege mu dem da ngay boole xay ak ci luy ca xeeñ. pànk te bañ a te jonge te bañ a réew. <laughs> ah kon jonge ci la waaw jonge ci bu mbaa ma ji da ngay jonge. jonge bàyyi Mor bi moo gën a jonge ci la topp si eh. ah. bu daan dox jëkkër dañu ko ak mu def nii baaraam yi doxe ñaari ñaari baaraam yi di cokkos cokkos yi ba fële bàyyi du Mbaw ni état bi ma toog ci sëñ Assane ba tëtt sa ku ma gën a yegg ci yàlla fananu fi. dëgg la loolu. <laughs> ma ma noonu lañ daan def dañuy pànk jonge te duñu réew xam te duñu xamadi mm. bari dara ji ba noppi duñ ko yëg ndeysaan déggal loolu <laughs> ndax Cheikh Fall ne mandikat bi gën a neex ci mandikat yi mooy ki mandi ba tërëb ci yëgut ni mandi na jongoma ji dàq ci jongoma yi day dàq ñëpp ku mu romb sa dagg te du yëg ni rafet na ndeysaan salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu jërëjëf jërëjëfati Baye Adama Baye Adama toogal moom kañ ñu ngi lay ñu ngi lay ñu lay ziar bu baax a baax mm. di la gën a dollee ñaanal li ñu la ko waxee Euh, xam naa ni moom. ñu koy jéggulu te suñu sañoon. suñ sañoon euh, maanaam euh, euh, dan koy fanaane rek. waaye nag euh, incha allah dinañ am yeneen yoon. yeneen yoon ñu ngi ñaan suñu borom gën laa kàttanal. gën la fay yàggal lool ah, wax dëgg yàlla. bu ñu ko jëlee ñaari talaata ba ko ñetti. incha allah ñu ñëw àggale ndax mënut a ñàkk daal bàyyi Adama loolu moom mbokkee ñu ngi koy kii saa su ne. Ah. di ziar bu baax a baax nag sëñ Moussa Seye. Moussa Kane sama sama nijaay di ko ziar bu baax moo soxna am soxna Ndeye Fatou Wade. waaye soxna Fatou Dioum nekk ci Italie. Mm-hmm. di ko am taw tawfeex xam nga ni barki dem rek ay sunu ziar bi si kanamu si Cheikh jëm fi ñuy génnee di dem ah, fi la fi la addiyam di tàbbee di ko ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla di ziar mbokk yi ñu doon teewlu sëñ sëñ Makoura Ndiaye nekk ca mm-hmm. euh, France ñu ngi koy ziar bu baax a baax sëñ Modou Baye Fall Ndaw di ko ziar te di ko waaw di ko di ko di ko ndokkeel bu baax a baax ndeysaan ci taxawaay bi ak démb jëf ju jooj si kanamu sëñ Cheikh Jëmb mm-hmm. waaye it sëñ Gana Messere Maxtaar ñu ngi koy beral nuyoo ak ah, ziar bu wër a wax dëgg yàlla ndeysaan muy naan Adama moom ko topp incha allah tey nee na dana seetaan jotaay bi maa la wax li maa la wax dama ko wax ca ngaay ne ko ñun ñi nga bi micro man sax bokkuma ci ndax man duma conférencier ndeysaan dëgg la xaw ma loolu mm-hmm. beneen maison laa yor bu bokk rek conférence waaye kenn deful lu gën conférence fàttali yàlla ak fi ñuy jaar ba mën am yàlla Mm-hmm. ma ne ko gànnaay li nga ci boole kenn da ko kenn du ko amul. Mm-hmm. waaw nga xam-xam kenn rawu la ci gaa yi. Mm-hmm. kenn ëpp la ci fit. kenn gën la ci gëm sëñ Tuubaa. kenn gën la ko cee yaakaar. te lu wii li nga wax nga koy teg. daane ko yow ak Abdoulaye Diouf Bichri. ndeysaan Xaadim euh, Njaay Kayaar Xaadim Njaay tasoof sëñ Jili Sàmb Jamil Diagne. Eh, ak ñeneen ñi si. Moussa Lim di jeex Baye Moussa Seck Baye Fall Moussa Seck Baye Fall. Moussa Seck bi ci Yoof Yoof ak Moussa Seck si moom si moom laa bëggoon ñëw. waaw ndax kafe gi su ko defee. Mm. waaw. Mm. Eh, te sëñ Tuubaa dafa waxat mag ñi waxtaanee moom moo gën ceebu moo gën jaay mu jar. Mm. moo gën weeru dee. Mm-hmm. ndax banque bu di dee witt banque bu di dee witt wala mu ub mm-hmm. ba mu dis banque bu sëñ Tuubaa. sëñ Mbàkke man nag moo wax ni ma boo ko fortu boo ko foyee bu ko. fay hmm. boo ko fortoo doo ci am ndam boo ko fayee doo ci am ngërëm boo ko fayee koo li ci loxol sëñ Tuubaa dana rëcc te moo gën a woom gaa yi hmm. dëggal loolu waaw gaa yi lu la jox ren bu dee ne ñu séntu ba xam nootu mu ba xam bu téye si loxo di nga dem wala doo dem hmm. foofu lañ te ginnaaw nit ñi moom ginnaaw nitu tey lañ jikkoy paste wal daal lañ yor waaw da ngay màcc tàmbali tàmbali mu saf suukar ci biir mu weqaat yëkkati ba nga tolee tax ñu mbas la boo da ngay daan te bu la Cheikh Rafa téye sëñ Tuubaa moom sa yoon ci ku jàpp ku jàpp ku jàpp nga dem ku jàpp nga dem. jërëjëfati waaw. benn ko mu mu ñëwee. 66 mm. ak léegi ma ma ne ko yëkkati moom poids kilo ci saa balaa balaa neuf heures ma taal lu te gan gu ñëw ma gunge la. te du ma am benn semaine bu ma réew xar mbaa fukki ginaar. Dakar añ bu neex lay taal. te màggal gu ñëw dina añ nañ fa kañ fa. waaw màggal gu ñëw dinaa rey yetti nag <laughs> rey ca daara joon muy yent màggalu poroxaan yetti nag. waaw poroxaan de moom sax. bu saa màggal ak bàyyi aw nag. <laughs> bëy mu amalu ko af ak soglaay wala heure saa yu ñëwee ma rendi. béy kay bàyyi naa mel gétt nga ci yore. waaw dem man bu ñëw ma rendi. waaye dama daal murid la. maanaam xam-xam yi gars yi wax it dama koo yur. danaa la gën a la a. waaw kay ah, xam yi gars yi wax it mun yuruma ko. Mm-hmm. xam nga lu ma yoro. Mm-hmm. wakkilu Sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall mii lu ma xaatim mënta fajal mbaa sunguf ma fab Cheikh Ibra Fall liñ caa tey ci. ah mais ah. ba bu ma xaatimee mu tëb ma fab sunguf suy mu të. man Cheikh Ibra Fall yàgg suñ taay yéene fi sus kenn yaakaaruma ngir saa bàyyi. bu leer laa leen wax. tey sama yoon ñëw ci yeneen. Hmm. moo tax ñaar laa xay mënu ma koo faj ñaari jàngoro. Hmm. juma kenn yaakaaru juma naru dara. waaye lu ñëw fi moom falas ko tubaarkàlla loolu leer na jërëjëf Baye Moustapha Baye Baye Baye Adama di jeex bu baax a wax sëñ Moustapha Seck mu yoof gis nga café gi tey def ni yéen café gi jël mu maa mat na ko waaw Babacar Babacar Mbaye ñëw ak Fallou Mbaye ak ñoom seen Amar Wade ak Abdoulaye si laaj ñëpp rek Alioune Sarr sama doom ji ci yow. mënut a ñàkk waaw sama kër sama waa kër. mu comme comme comme kooku moom dëkk dëkkandoo suñ Moussa Seck. nii la sama waa kër soxna ya. ndeysaan waaw yaa damay borom kër gaa ña sa topp. waaw ah, na ko soo ko xasee wax nga ñëpp boo aw yaa ca daara yëpp mat na. waaw ah, te bàyyi ak ak kër yi àjjana yi ci wet bi. ah doo tudd ñëpp rek. waaw maanaam kër kër yi àjjana yi ca wet ga. waaw war na tudd. waaw waaw kër àjjana ga rek matal na. waaw xaar ma Adama. waaw sëñ Moustapha Seck. bii weesu talaata bii weesu hmm. fii ngeen toogoon nii saan la toog a bégal murit yi bégal Baay Faal yi hmm. tey jii mu ne kafe Jazbul murit maa koy fàgg moom ak sama sëriñ boobu si kër ga maam Cheikh Ibrahima Fall ko ziar bu baax a baax waaw ak euh, soxna si Diop ñu ngi leen di ziar ak mboolem njaboot gi hmm. di ko ziar moom da koy xool rek xam ni Baay Faal tigi la macha allah yàlla na ko suñu borom gën a sàmm di ko ziar bu baax sëñ Abdou Xafoor Joom it xam nga ni bi weesu fa la toog di ko ziar bu baax a baax sëñ Mara euh, nekk ca France di ko ziar bu baax di ziar sëñ Modou Baye Fall Ndaw wax naa ko sànq waaye sëñ Balla Seck ca ca ca Palma de Mallorca ndeysaan ñu ngi moom sëñ Balla Dieng ñu ngi leen di ziar sëñ Abdoulaye ca ca ca Fadja moom it di ko ziar sëñ Ibrahima Sadji ca ca ca France di euh, di ko ziar bu baax a baax mu sëriñ Saliou sëñ Ibrahima di ko ziar bu baax sëñ a Diallo sëñ Ousmane Gueye moo yore dongaay moo leen di faj moo leen jox macha allah yàlla na ko suñu borom gën a sëñ Euh, li ñu daan dax naa ke ma solol sëñ Mudu Caam ca France moo ma mat na ko de moom de solol na la wax dëgg yàlla <laughs> Diop Amérique waaw bëggoon nañoo tudd euh, ñëpp rek wax dëgg yàlla ñi doon teewlu ñëpp Abdoulaye Thioub euh, ñëpp rek yow moom soppee ñëpp nga bàyyi <laughs> sëñ Maxtaar mu bàyyi xel ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ziar Sëriñ Saliou Seck di ñaan tout tànk boobu suñu borom barkeel ko mook suñu bàyyi bàyyi Omar Seck HLM ba ñu ngi koy ziar bu baax sëñ Mor Ñang sëñ Mor Sarr Ñang Eh, sëñ Mbow ma ca Cameroun sëñ Baara Dieng wax naa ko sànq Palma de Mallorca soxna Anta Ngunda eh, di ko ziar bu baax soxna Anta Ndiaye waaye di ziar bu baax a baax nag eh, soxna Aju Sooda sëy sa sa sa sa Mbàkke ak soxna Jaara sama goro yooyu ak soxna Daagoog ñoom waa kër gi yëpp rek mm-hmm. di ziar bu baax sëñ Moustapha sëñ Moustapha Kase mooy sa France di sama sama goro di ko ziar bu baax sëñ Xaadim seen sëñ alaaji Baye Fall Sikar mii ñu ngi koy ziar bu baax a baax ni kii te mboolem mbokk yi rek xam nañ bëggoon nañoo tudd ñëpp sëñ Cheikh Ngunda Guèye ñu ngi koy ziar bu baax a baax ndeysaan moom suñu lépp la sëñ Modaay Dafal sëñ Moussa sama nijaay maa ngi koy ziaraat baax sëñ Moussa Kan Moussa Sey waaw di ziar sëñ Aliou Jaxate sëñ Modou baay Fall Ndaw sëñ Pape Thiam moom it ñu ngi koy ziar bu baax Pape Thiam mel ni Génoa sëñ Alaaji Baye Fall ziar nañ mboolem mbokk yëpp rek fàttewuñu kenn wax dëgg yàlla ndax nag Baye Adama yow àdduna ñoom ñoo lay bégee te ñëpp ñu ngi siy noo sëñ Wulaay Diop Baye Yérim Aw Baye Yérim maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax maam maam Diarra Cissé mu ngi lay yóbbante ay nuyoo sëñ Mbayka ca ca ca ak sëñ Modou Diop ca Yoff maam Diarra Cissé ndeysaan ak ak jooja ndeysaan jooja ñoo ngi leen di siyaare <laughs> di siyaare bu baax a baax suñu Alioune Thioune taxawaay waa kër sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou waaw ñu ngi lay Karim sëñ Xaarim Ndaw mhm. sëñ Xaarim laa daan àndal mhm. mu ngi lay siyaare bu baax mooy Chine Ndaw mu ngi lay siyaare bu baax a baax Baye Mbaye nag ñoom Baye Sewro murid yëpp nag eh, sëñ Moustapha waaw sëñ Moussa Diop Moustapha Diop léegi sama doom la day téléphone mi ngi topp sax jotaay bi day téléphone mi ngi lay ñaanal bu baax a baax mi ngi lay ziar signal yi ma bëgg a jox ma bëgg a jox murid yi addee jo mhm. Cheikh Fall waaw murid yi addee bu Cheikh Fall waaw ñun ñëpp nañ teewlu kon waaw na ngeen nanu farataal mhm. jàng xasida gu ñu te fas li wajikal karimi kullu man xafisati ab yaata fii kulli zaman ak man sànn mhm. kii allahu la kii Muhammad ak man sànn waaw man sànn mooy allah mooy moom ma tànn mooy Muhammad ifas mm-hmm. mooy allah yaasal wujudi wal baqaayi wal xiddam mm-hmm. yaasal muxaalafati xus min al xiddam mm-hmm. sëñ tubaa nee na ku leen di jàng wala nga wattu leen soo ma baax duma la mën a baax soo ma baax duma la mën a baax waaw bay bay aadama si delluwaat si waaw dafa wax ne yaasal wujudi wal baqaayi wal xiddam yaasal mu xaalafati xus mi nag ak infas li wajikal karimi kullu man afisat labiyaat fi kulli sam ak man sànn ku leen mokkal wala nga leen baagante yaa mën a jóg ci man waaye mënumaa jóg ci yow jërëjëf Cheikh Fall ni infas li wajikal karimi kullu man ku xëy di liggéey li sa wala ngay liggéey sa bopp wala nga xëy di toog sa kër amook der fas fase ko ko wala amoog dal nga fab sa ñaari baaraam yi dajale ci sa nit jàng fas ba mu yegg nga takk nga dajalewaat fii soo liggéeyee ñu fay la soo liggéeyee ñu fay la. efas efas li ma dikkal kër yi ko. est-ce mu faatul bisri. xam naa Abdoulaye Diop bisri naa ko ci laa kado ak ñi koy jàng te yëguma li Bichri di jàmbaar la <laughs> maam Diarra Cissé ak maam Diarra Cissé moom da mu si Bichri rek waaw moom moom dana ma yónnee addi <laughs> voilà lii de <laughs> sëñ Tuubaa boo dégg ku jàng Bichri ci neuf heures suba ba neuf heures ci ku la jox bàkk ku la jox loxo tàggoo ak bàkkaar ndeysaan juróomi bunt la bunt boo jàng da ngay wax bisimillahi rahmaani rahim ñetti téeméer ak juróom ñetti fukk ak juróom ñaar bu julli waxtu yi ba ba mu ànd julli waxtu yi juróom soo ko calculé rek di nga xam ñaata la mu dugg ci bisimilah mooy sirew ma fàttali bis bi. sëg yoo dugg jàng ko ñooña texe ak sëg yu mu doon nag boo ko waxuma sëg yu julli ku faatu daal buñ la ko. jàngalee sëg yu mu doon daal. sëg yu mu buñ la suulee ku jàng bis noonu ñu jégal ña fare. te nag war na roy sëñ Tuubaa ci. yaa maalikal mulki yaa man jàll am xawadin erham mm-hmm. jami alwara yaa haarira war nañ ko ca roy yéen a ñëpp jàmm te ñaanal leen <laughs> jërëjëf te ñaan ci suñ si nag ndax infas li waji kalkare mi kullu man afsil lam yaati fi kullu saman mm-hmm. ban bis la lan daje woon daaru ma naan mm-hmm. altine néeg sëñ tubaaba ca la nu daje ba ci daaru ma naan dégg nga am waaw sëñ ma jëng jot la waaw li baa dama kii moom dañ kaa war a jàng ba mu mat sëkk sax bala ñëw ñu ñu tëjee ko jotaay bi ihfaz li wajhil karim kulla maanaa maanaa kër altine néeg sëñ tubaab ba ca waaw waaw moom la ñuy daanelee moom la ñuy daanelee sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mouhamed ñu ngi jégalu bu baax mhm. néeg sëñ tubaab ba ca daaru ma naan mhm. lanu dem jàng ko fa junneeg téeméeri fukk ak benn mhm. ñaan réew mi yàlla def fi jàmm mbas mi yàlla wàccee ci loxo ci ci ci coobaree boppam yàlla toppale ko Mm-hmm. may sunu kilifa yi fi nekk jàmm ak wér te may na ko mm-hmm. muy kilifay aada yi ak kilifay xalifa généraux yi ak ñu julli yi ak ñu ak état bi ak gouvernement bi mm-hmm. suñu borom may ni jàmm defal na senegal gi Afrique gi jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxe ak kaaraange junne téeméer fukk ak benn lan ko fa jàng te nekk suñu tamba te daaru ma naan fa la ko mbaaxaan fekkeen ak tubaab mu ne ku tëddan bul jóg ku toogan ku tëddan nelawal ku toogan bul jóg xar du meññ tubaab daru jërëjëf jërëjëf kon jàng waaw moom moom bëggoon Xaadim Mbàkke mu mu suñu Fallu waaw Baye Dama mi ngi lay ziar bu baax waaw kay maa ngi koy ziar jotaay ñu ngi koy topp bu baax suñu Xaadim ku bëgg maam Cheikh jàng ko ma di maanaam di ziaraat bu baax tamit Serigne mustafaa Dieng nekk ca Paris di euh, doomi euh, yàlla na suñu borom yokk leeram euh, sëriñ Madieng xari Dieng nekkoon ancien ministre di ko ziar bu baax baax wax dëgg yàlla di si ziar turandoom bi nekk ak ñoom ah ba Baye Adama kii jàngal jàngal am naa si ndigal waaw ah Fallou Fallou yaram waaw jàngal kay. jàngal am nga si ndigal. ah comme ñun ñëpp ñu bokk teewlu rek. <laughs> amiin ah lii bu maa doon suñu. di doxal waa ji ah doxalal. allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi واحفظ كل من حفظ هذه الأبيات بحروف الله بحروف الله احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت أبيات في كل زمن li yastajib rabbi wa wajjih fil alan wa sirri iblisa li gayri bi walan laka fuaadi yaa ilahi ma an wa kulla man qasada gayraka fa an ihfaz ilahi zahiri wa mabatan min al mafasidi wa safi liatan hab li duxulan fi ximaaka za aman fi lxaali walmaali malika daman tabaraka wa taala amin ya rabil alamin subhana rabbika rabil izzati ama yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabil alamin barke borom Tuuba kaay xalaas ci bay adam jërëjëf jërëjëf yàlla na fi yàgg te wér xalaas